dellu siwaat di leen siyaare te di leen balu xaq te di leen bal xaq tey ñaan yàlla mu boole ñu jégal di santaat yàlla di julli ci ngën ji mbindeef seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi tax yàlla binduñu gën ñépp gën lépp kawe ñépp kawe képp muy ki nga xam ne mooy sagub mbindeef yépp di sagub lislaam bépp di géej goo xam ne képp ku tefesu ci géej googu nga tefesoo te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu amaat mbégte bi nu yàlla dimbalee may nu nu fekkee waat lii nga xam ne mooy bisam bu tedd bii nga xam ne ci weer wi lañ nekk nii te fan yu néew danañ àgg ci bis bi nga xam ne làq na xar baax yépp mu di ak gan ak jamonom la nga xam ne moom la ca ñi koy taarixal wax te mooy siira yi ñu ci indi te ñun kañu ca tànn mooy sunu yaakaaru tey ak ëllëg di sunu bunt ci moom te amul kumpa diggam ak boroomam amul kumpa diggam ak yonent bi kooka mooy xaadimu rasul danañ jéem kem kattan kem kattan ci di ijjantu ci li mu ci jot a wax as tuuti ci ay bayit yu néew ci jasbul xulub andi ko ci ngir baaxe ko téléspectateurs yi nga xam ne waxtu jot ñi ñuy safo mu nekk bis boo xam ne fu ab jullit mën a nekk ci àddina te sa njullit dëggu te nga set wecc ci ak naafeq ba dara du la ci taas dara du la ci jege bis bii na nga xam ne mooy bis bi gën a màgg ci lislaam ndax ci la ngeen ci mbindeef wàcc mu yónnente bi yàlla bi nga xam ne moo mujj wàcc ci yónnente yi waaye mooy yónnente bi nga xam ne yónnente duutu ñëw gannaawam yónnente boobu mooy yónnente bi matale lépp yónnewuñ ko ci ñenn bàyyi ñenn yónnente boobu ñëwul mukk naan yaa xaw mi yónnente boobu mbindeef yépp yépp yépp la ko suñ boroom yónni muy wama arsalnaaka ilaa kaafatan linaasi basiiran wan nasiiran kon kooku ak ganeek jamonoom li ci sëñ Tuubaa wax képp kuy jullit kuy jullit te dégg bu baax la sëñ ba wax te xam ne sëñ bi amul kumpa diggam ak yonent bi li mu ko ëmbal ci cofeel mënee su ko xiyaas ci lenn lu ñuy lu ñuy xiyaas ci àddina ci ak bariwaay ak jéggi dayoo ca lam ko tagg ca lam ko wax ca lam ko liggéeyal loola képp jar na bu bis bi jotatee lu waaye jàppoon nga bàyyi ko te xam ne mooy bisub mbégte mooy bisub texe mooy bis bi ñuy laabal ay bàkkaar mooy bisub dolli ko ci lépp lu baax kon kooku ëpp na bis bi ñëw ñuy nekk ci leneen di ko jéem a gaafal ak di ko jéem a wutal gaaf goo xam ne dañ koy teg ci bakkan loolu pexey seytaane la nun amuñu kenn ku dul seydinaa muhammad alayhi salaatu wasalaam amuñu kenn amuñu lenn bëgguñu kenn bëgguñu lenn lu dul muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mi gënee jamono ci màkkatal mu karam yónnente boobu nag yàlla daf ko yónni ci mbindeef yi yépp kaafatan li naas la wax kaafatan li naas waaye yónnente boobu yàlla daf ko yónni ngir yërmande ci jullit yépp wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin yàlla daf ko yónni ngir yërmande te boo duggee ba ci biir siiram danga xam ne yërmande képp mooy yónnente bi yàlla boobu sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama tasliman yónnente boobu yi yàlla daf ko waajal waajtaayu woo xam ne yàlla ko waajal ci boppam ngir li mu namm ci jullit yi namm ko ci mbindeef yi moo tax mu tànnal ko tànnaat ko tànnaat ko ci aw askan la ko dale ci ki nga xam ne mooy maam aadama tànn ko ci biir maam aadama ci mbindeef yépp lim bind yónnent bi ci maam aadama la ko tànne ndax keroog bi maam aadama wàccee ci kaw suuf mboolem lu yàlla bind maam aadama la ca tànn ba mu ko ca tànnee yàlla tànnaat ca biir maam aadama njabootuk yónnent yàlla ibrahim waaye mu tànnaat ci njabootuk yónnente yàlla ibrahim ku ñuy wax ismail mi nga xam ne mooy taw yónnente yàlla ibrahim mim dëkkaloon makkatal mukarrama mu tànn ci ismail ba bannoo azim nga xam ne ñoom ñooy ñi gën ci ngir yi ca foofee la tànnataat yónnente bi sallallahu alayhi wa ci diggante ñaari waajur muy Abdullah ak soxna Amina moo tax boo demee ci alxuraan Ali Imran da gis mu naan inna allaha astafa al wa nuuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alalamin surriyatan baxduha min baxdin wallahu samiun alim boo demee ci suuratu Ali Imran da nga fa fekk nga xam ne suñu boroom moo ko bind ci ni ko neex tànn ko ci ni mu ko neex wa rabbuka yaxluqu maa yasaau wa yaxtaar maa kaana lahumul xayaar bi mu ko tànnee ci ñooñu moo tax yonent bi wax na ne anna xiyaarun min xiyaarin min xiyaar yàlla daf ma tànn ci li mu tànn tànnaat ci li nga xam ne ci la tànn mu tànn ko nag ci ñi nga xam ne ay arab lañ leen tudde woon waaye arab yooyu dafa nekkoon ay catégorie yu bari al arabul baida muy arab yu jëkk ya nga xam ne ñoom xóot ak xat ñoom ñépp ci lañ nekkoon dafa mujj dispersé ba arab yooyu daanaka kenn xamatul ci seen taarix dara ak arab bu ñu wax mustaarifa ak arab bu ñuy wax arabul aarib yooyu ñoo fi nekkoon waaye yàlla tànn ci ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad te li ko waral mooy yonent yàlla ibrahim dëkk gi ko yàlla dëkkaloo woon màkk ak njabootam rabbi inni askunta min zurriyatin bi di si sarxin xinda baytikal muharram foofa la nekkoon dëkkal fa ba ngir gu ñu wax jurxum ñëwoon fa dëkk ak ñoom mu am ca soxna di dem ba yàlla dogal càlla la gi di law ba ñëw ci ki nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi sallam te loolu day wuyu daxwatu ibrahim muy ñaan googu mu ñaanoon yàlla yónnent bi feeñ ci aw askanam yonent bi sallallahu alayhi bi mu feeñee jamono dafa fekk waajuram wu góor génn àddina kon moom dafay ñëwee ci ak tumuranke ndax segg gu ko yàlla segg mu bañ a nuroog mbindeef yi ci dara lenn luñ koy sikkee walla loo xam ne si luñ koy xeebee loolu mënul woon a am ci moom moo tax yàlla tànn ko ci tànnin wu rafet wii nga xam ne amul dara lu ko mën a rax yaral ko boppam ba mu yaru ba bokkut ak nit ñi dara mu door koo yebal nag jox ko risaala bi ne ko demal nga woote ci ñi nga xam ne ñooy say jegeñaale nga xam ne bi mu ganee jamono fekk waajuram wu góor wàccub liggéey maamam ci ñuy wax Abdul Muttalib fekk alxuraan waxoon na ne ci tawret yonent bi dina ñëw ci dat sàngam te kooku mooy Ahmadu waxoon na ko ci Muusa waxoon ko ci Isatu ibnu Maryam waaye Isa moomu ci téere yi mu ko doon junje mooy injil te injil boobu sax amatul dafa dispersé ba injil bi ñuy taarixale ki nga xam ne mooy Isa injil boobu mooy mujj ci lañ mujj xam yu bari yoo xam ne ci la doon wax ne Isa dana wàcc dat sàngam noonu tamit la ko waxee woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba waxoon ne ci at sàngam lay wàcc kooku aw turam ismuhu mooy ahmadu bi mu gane jamono fekk waajuram bu góor dëkkoon ca yasrib muy madinatul munawwara génn àddina abdul muttalib moom moo ko tuddee muhammad fekk nañu ñu jàngoon taarixam bi ñu xamee na ci at mii lay juddu ak juddoom jage na dañ doon dàkk li nga xamante ne sii mooy tur woowu ku am doom tudde ko tur woowu ndax jàpp ne ci yow lay feeñ waaye yàlla moom kenn du ko jiitu ci dara ba mu feeñee ji ci diggante ñaar yoo ñaar ñooñu muy Abdullah ak Amina soxna Aminatu fekku fi waajuram wu góor xabdul Muttalib moo ko tudde Muhammad nga xam ne ci cosaanam boo ko xoolee ci ay maamam tur woowu monsieur su ko cee gis waaye yàlla moo ko yenkeewal tur woowu ñu tuddee ko ko muy Muhammad bi nga xamee ne yar na ko bi mu amee juróom-ñetti at moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la maamam jooju wuy ji boromam waaye bi mu daataan wuy ci boromam da koo dénkoon ki nga xam ne mooy doomam ji ñuy wax abu taalib nga xam ne mooy bàyyu seydina ali karamala mu yar ko ànd ak moom def ko mu gënal ko ay doomam la yónnent bi def lépp ci kanamam la ko defee ba yónnent bi dem ba màgg ba nekk moo waxambaane ba ber kërug boppam lépp booba Abu Taalib mi ngi fi di dund nga xam ne ko léppam fi la ko fekk jaar jaar yu bari it ci moom la ko fekk mu daan ko dimbuli bu baax ba woote bi mu doon woote sax ci nubuwa gi yàlla dogal na fekk na ko fi ba yàlla dogal fukki ati woote bi ci la wuy ji boromam moo sayyidatuna Xadija mu daal di gën a am nag ak tumuranke ci wàllu ñu koy jàppale waaye yàlla moo ko téyal boppam waaye xam ngeen ne ci taarix yonent bi yàlla daf ko téyaloon boppam yaral ko boppam ndax lim ko nar a yónni moo tax lenn lu koy gàkkal wala lu koy sikkal du mën a feeñ ci moom ndax ëllëg bu taxawee di wootee nit ñi ci wàllu boppam duñ ko mën a jam ci ne ko yaa fi defoon nangam démb wala yaa fi waxoon nangam wala yaa fi meloon nangam wala yaa fi jaaroon sàngam moo tax lenn lu ko mas a gàkkal yàlla daf ko ca orienté woon ba dawu ko jege nga xam ne li nit li nekk ci nit muy aw lumbu deret ngoo xam ne ay ñaaw ñeew da cay nekk ay ñaawteef loola moom da ko teeloon na dindi ci moom ba tax na loola amul woon moom wax nañ na nettali na benn bis wax ne dafa am lu mel ni ay asnaam yoo xam ne dañ ko daan jaamu ci Makka ba benn bis ñoom ñu dajee noonu muy xëramkat yi mel na luy def ak feet ci Kaaba gi moom mu jógoon bëggoon a dem fekke ji lool waaye ci yar bi ko yàlla yar bi mu ne bëreet di dem ba àgg ci benn dëkk boo xam ne dañ fa doon wàccee ab séet waaye way yañ fay way nag mu dégg ko ci noppam mu neex ko lool mu daldi toog ci wetu miir bi sës ci fi ñuy céetale muy déglu waye ba far nelaw ba mu yeewoo mu dellusiwaat def na ko ñaari yoon waaye yàlla dogal mujjul fekke loola ndax ku ko fekke woon bu ëllëgee nit ñi àgg nañ ci égoïste boo demee bay woote dara ñu ne xanaa du kii moo fi defoon nangam wala xanaa du kii moo fi waxoon nangam loola la ko yàlla doon bañal moo tax mu jaarale woon ko foofu moo tax ma adabani rabbi ahsani taabi taadibi yàlla moo ma yaral boppam ci yar gi gën a eh, fegu bi mu nekk ak waajuram woowu du Abi Taalib jaar-jaar yu bari ci moom la ko jaar ndax gis nga ne demoon na ca baadiya ba yóbbu woon ko fa joxoon ko alimatu saadiya mu ko doon nàmpal fekkoon ñoom ñu nekkoon ci famille bu ndóol ndóoloon lool ba suufe lool waaye barkeb yonent bi sallallahu alayhi wasallam tax na loola ca lañ jaare ñoom soqali ko ba ñépp ràññee leen kon yonent bi fépp fu mu teg tànkam rek foofa dafay barke la moo tax it kóolute gi ko nit ñi wóolu woon loolu ci yarub suñ borom boobu la soqi ko ndax kóolute googu ay noonam ñoo ko wóolu te loolu wax na ko moo tax moom daana wax ne ndax bis bu ma ñëwoon taxaw ne leen gannaaw kun tund wala de seeni noon a ngi ñëw ngeen waaj defaroon ndax da ngeen ko gëm waaye ba mu ko waxee lañ na ko ma jarray naa yi kaasiba ñun de mësul ñu laa xam mukk ci wax lu dul dëgg te booba aboo lahab ak aboo jaxlin ñi ko gënoon a noonoo tey bokkam bokk nañ ci ña ko wax ne ko yow mësoo wax mukk loo xam ne amul yaakaar naa seere nag bi ci gën a dëggu mooy bi la noon seereel ci lu baax kooku moom yaakaar naa ne kuñ ko seereel rek ngeen fi mbindeef moo tax mu ne innama bu'istu li utammima makaarimal axlaq yàlla yónniwuma ci yéen lu dul mottali si jikko yu rafet yi ci yéen moo tax yàlla tagg ko ba ne wa innaka la ala xuluqin hashim sëñ tubaa ñëw tëgg ci muxaddimaatul amda bi nga xam ne maamam jooju wala waajuram woowu nga xam ne mooy magi baayam te mag ko fuuf muy abi taalib lépp mu def ko ci moom ba ci fukki ati woote bi ci la génn àddina mas nay ànd ak moom di dem fi ñuy wax sàmm ci doon commerce ji bi mu àndeek moom di dem ba àgg ci benn barab dajee fa ak benn labbe bu ñuy wax baira labbe bi daal di xool yonent bi gis ci ay màndarga yi ni ko yàlla waxee woon na dana wàcc ci seeni téere yi nga xam ne ñoom moom lañ doon jàng waaye mu daal di wax abi taalib ne ko loo mën a jàpp wàññikul ndax kii gis naa ci moom màndarga moo xam ne nii ma ko xamee bu demee waa saam ni lañ koy xamee te ñoom jàppoon nañ la ci seenu xeet lay wàcc te bu demee mën nañ ko fitnaal kon dalal koy wàññiku mu daal di wut ñim ko booleel ñu indiwaat ko ci biir kër gi waaye yonent bi bi mu demee ba nekk waxambaane am fanweeri at ak juróom fanweeri at ak juróom bi mu ko amee nga xam ne waxambaane la xabila yu nekkoon ci biir màkkatal mu karam muy ay ngiiri arab yu woote bi ñuy teg xajaratul aswad ngiir gu ne dafa ne woon maa jekk ci teg ko kon kenn du ko teg dama bàyyi ba ngir yépp pëccaxoo am ci seen biir ñu commencé nag woo seeni ñoñ ngir ñu waaj ngir xeex ba kenn ku nekk ku ci am ndam mën a teg xeer bi waaye genn góor moo leen wax ne leen lii de bu ngeen ko defee dangeen yàq lu rëy ndax ñun ñoo yéen ñoo bokkoon di xeex di xeex ci lislaam ba am victoire bii te ngéer yi ngir gu ci nekk mën na koo teg waaye kenn rek moo ko mën a teg kon nañu waxtaan ba juboo su ko defee ñu teg ko jàmm ne ñooy yàlla def ca seeni xel ak juboo da cay am ñu ne léegi dañuy tànn koo xam ne nekkul ci mbooloo mi su ko defee ñi wër urumi kaaba gi kenn ku ne toog fa nga toog bunt bii képp ku fi jëkk a jaar te bokkul ci mbooloo mi bu ñëwee moom mooy teg xeer ñu daal di serkale kaaba gi daal di toog ndeke lañ toog rek yonent bi sallallahu alayhi wa ñëw na tëll ñu ne al amir ñëw na ñoom ñoo ko tuddee al amin ñoom ñu doon xëccoo ñoo ko tudde al amin te ñooñu bari na ci mujj ñu ko wuy si ci woote bi bi mu dikkee am mbalaan la lallu ñu lal ko daat ci teg xeer yi fenn fu ne mu wax ak ngir ne ko jàppal ci barab sànkam ñu jàpp mu ne yëkkati leen ñu yëkkati ba tolloog fañ ko war a teg mu ne waaw kay teg leen ko nga xam ne kon maanaam ñëpp maase nañ ko teg kon atte bu jub yàlla da ko ko mooñaala ndax yonent bu yàlla di yónni moom da koy segg ba lim mu bëgg a woote bu dikkee da koy mën a woote passivement ba kenn du mën a wax ne lii yëfi boppam la moo tax ñiy wax gàmmoo naan gàmmoo nit waru koo def ñu ne leen ndax lan ñu ne yonent bi dawu ko def waaye loolu dafa bokk ci ak matadi nit yàlla yónni ko ci mbindeef yépp ak wa ma arsalnaaka ilaa kaafatan li naas nga war a ñëw joxe risaala bi ak ni mu parcours bi ni mu guddee nga ñëw au lieu nga wax loolu nga fay wane sa bopp kon xam nañ ne yonent bi mënul woon a wooteel boppam ndax bu ko wootee woon woote bi yàlla bi du jàll ndax dafa am temps buñ ko àppaloon ci biir àddina te temps boobu seconde bu ne minute bi ne waaye heure bu ne waaye waxtu wu ne bis bu ne dafa am lu mu ci war a def loo xam ne si mënu ko ab sant kon loola mënu caa wane boppam waaye daana def bu bisub altine boobu jotee moom sallallahu alayhi wa sallam ko daan woor ngir lan ngir màggale ko bàppam waaye ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ko gëm topp ko ni mu ñëwee wane risaala bi ko yàlla yónni nga xam ne kenn doxul diggam ak suñu borom ñi ko gëm te topp ko te mu jàddit yi nekk ci it ñooñu ñoo mën a ñëw ñoom it génnee yónent bi ci yi lamboo ci moom ci ay xar baax ak i ngëneel ñoom ñoo ko mën a wane mooy ku ci mel ne sëñ tubaa sëñ tubaa moom xanaa kenn du am xalaat wala fitu di xalaat ne li muy def tegu ko ci sunna loolu moom xanaa xel xalaatu ko te sëñ tubaa li muy def lu nekk rek noonu la Sidi Alaaji Malik nu mu def noonu la waa ahlu tasawuf yépp li ñu def noonu la te ñoom dañuy gàmm te gàmm dara lu aram da ci nekkul ndax weesuwuñ lu dul màggal yonent bi màggal yonent bi dàkk guddi gim génn ñëwee àddina ndax li mu fi fekkoon ci ay xiram loola lépp toxoo fi ak lëndam jóge fi ak leer dugg si loola jar na màggal waay loola jar na màggal ndax màggal lu bon lu fi jóge lu baax remplacé ko loolu jar na màggal kon loola ku ciy xalaat lu araam la ma lay posé question mooy bu bis boobu jotee nga ne duma ko màggal ndax yonent bi deewu ko def analysel yow miy dund ci lislaam te lislaam wàccul ci yow day dox di jaar ci ay réew ba agsi ci yow te ba nga juddoo ak ba lislaam ñëwee ba ci dat boobu kenn xamul ñaata siècle la ndax man ngaa teg baaraam ci ne man de lii may def lépp sunna la ndax contre sa mbokkum jullit di ko ŋàññi moom xam nga ne loolu du sunna te yonent bi dafa ñu daan moytandikuloo ñuy toog di wax lu bon ci suñu diggante ndax alxuraan moo ne waxtasimu bi hablillahi jamihan wala tafarraqu waaye moo ne innamal mu'minuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum kon aaya alxuraan ñaar yooyu rek boo ko gëmee kon da wóor na leen tey gàmmo dafa dugg ci biir waxtasimu bi hablillahi jamihan wala tafarraqu ndax day rassembler waaye day dund it ci innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum ndax ñëppay daje ci dëkk yi sore gëjoon a gisante bu nu dikkee lañ fay def dara génn ci sunna dara génn ci sunna ndax mën naa ne lépp sunna la alxuraan lañ fay jàng loolu yaakaar naa sunna la siira yi nga xam ne dañ koy bind ci yónnante bi pour ñu mën a xam kan moo yónnante bi lan moo doon position loolu dañ ko fay wax te yaakaar naa loolu sunna la wax li yónnante bi daan def nga xam ne doo ca fent dara doo ci sos dara te lépp ci dëgg nga koy teg loola yàppar naa ne sunna la waaye yonent bi nag mënu ko woon a defal boppam kon ku gàmmuwul bàyyil nu gàmmoo waaye ku gàmmuwul maandul ci gàmmoo lislaam nag bari na ay giseen waaye la ciy dëgg moom benn giseen la la ciy dëgg benn giseen la muy ponk yi yi wàcc muy sahaadatu an laa ilaha illa iqaami salaati itaai zakati sawmi ramadan ajil beytillaahi lharam kon lislaam du ay xalaat yu ci nit di dolliwaat yooyu da ngay toog ba mu neex la rek nga ne yaakaar naa nangam la war a mën wala ngir sangam gi ma ci bokk nii la ci nii la ci dunde déedéet benn rais moo ci am benn rais képp moo ci am muy seydina muhammad alayhi kooku keroog bi mu ñëwee def na innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq mu dem ba ba taxaw ne al yawma akmaltu lakum diinakum li ma yàlla yónnee woon ci yéen lépp matal na ko kon léegi pratique moo ci def li ci matoon na def lépp def na ko bu doon ab tool ruuj na ko ba mu jeex takk amatul leneen lu ñu cay def gannaawam lu dul topp ca fam tegoon tànkam kon bi nga xamee ne yàlla dogal na yónnent bi di ñëw yàlla yónni ko ci mbooloo mépp ndax boo ngeen xoolee yónnent yañ daan yónni bu njëkk ay étapes lañ leen daan yónnee ñii dañ leen di yónni ci aw askan ñii ñu leen yónni ci am réew ndax bu ngeen xoolee ku mel ne yónnente yàlla nuux bi muy ñëw dafa am nit ñu ko yónnee woon moo tax masaan ñëw yaa xaw mi lay wax yàlla bi mu ñëwee it yaa xaw mi la doon wax yónnente yàlla saalih bi mu ñëwee yaa xaw mi la doon wax yónnente yàlla Shuayb bi mu ñëwee yaa xaw mi la doon wax ba ci waa bànnu Israil yaa bànni Israil su nga yónnente yi ñu ci wàcce Isa bi mu ñëwee it euh, yaa bànn Israël lan wax waaye kii nag bi mu ñëwee euh, li wax mooy dañ maa yónni ci ñëpp wa kaana nabiyan yubxasu ila qawmihi xaasatan wa buxistu ila nnaasi kaafatan kon moom wax na ne li ñu ko yónni mooy ci mbindeef yépp lañ ko yónni te boo demee ci alxuraan ci suuratu maida da ngay fekk yàlla di wax naan ya ayuha rasulu ballix ma ansala ilayka min rabbika walam tafxal fama balaxta risalati walaahu yaxsimuka min annaasi inna allaha laa yaxdi xawma alkaafirin kon loolu ci yonent bi salallahu taala alayhi la wàcc nga xam ne moo ko wax ne ko waxal li ma la waxloo man maa lay aar ba dara looluy mën a dox sa digganteeg loolu du mën a am waaye laata yonent bi di ñëw dafa amoon fu jamono tolloon ci ay yàqu-yàqu nga xam ne booba lennat ci deseeti nasaraan si ak deseeti yahud yi ñoo fi desoon nga xam ne seen téere sax dañ ko mujj modifié ba dem nañ ba amatuñ lenn lu ñuy tegtaloo lu mën a jariñ nit ki ci diine nga xam ne dem nañ ba dara lu baax amatul booba ay julli ay koor dara amu ci léegi nag ñii nga xam ne ku ci mel ne waraxata ibnu nawfal nga xam ne moom waxoon na soxna xadijatu ne ko màndarga yii nga ma wax ci jëmm jiide yi moo naamus ba dikkaloon Muusa benn la kii day na leen wóor na bu ma fekkoon njëlbeenu wooteem danaa ko jàppale moom i tamit dafa daan wëndeelu di wut diine ju mu mën a jaamoo yàlla ba mu wëree wër wër amul mu dikk nag daa di toog ci lu mu jàpp ne lu baax la mu nekk ca loola bokk na ci ku ñu wax xus ibnu saahid moom i tamit daana génn jóg di wëndeelu di wuti diina jum mën a jaamoo yàlla waaye da daan wër wër ba sonn gisul lu mën a jaamoo yàlla bu dikkee ne yàlla man kat wër naa ba sonn gisuma lu ma la mën a jaamoo ndax xawma li nga bëgg moom it muy nekk ci nu mu jàpp ne nu neex yàlla la mu nekk ca loola ñooña bu ëllëgee ñoom tamit danañ dem aljana bokk na ci ku ñu wax saydatu amru ibnu li moom tamit lu mel noonu gaaroon na ko muy ñoom ñett ñooñu waaye bokk na ci ku ñu wax Humaydatu ibnu Saltit bi nga xamee ne moom moom it dafa wër wër wër wër gisul diina ju mën a jaamoo yàlla mu daal di dikkaat nag daal ne kon comme gisuma lu ma mën a jaamoo yàlla naa nekk ci la ma nekkoon waaye daa mujj sax mu ne kon nag moom mooy far doon yonent bi sallallahu alayhi wa ba commencé woon di ca woote bi yonent bi feeñee mu xam ne du moom nag ak ki topp ko nanguwu ko topp moom wala insiyaasu billahi moom dafa mujj daal di dem ca fa nga xam ne moom la ñëpp di muslu yónnante bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee nag ba woote bi ñëw nga xam ne yàlla def na ko si wansir asiratakal aqrabin tàmbuleel ci sa ñoñ muy say bokk mu ngi mel na tey bu fekkoonte ne Touba gi ma ko mën a misaal laata yàlla di wax sañ Touba ne ko demal ci biir réew mi danaan ko tàmbuleel ci sa biir biiri bokk su ko defee mu mën a dem gene woo waa mbusoo bi campagne leen dem sura campagne leen dem daarul xuddoos campagne leen noonu la étape boobu demoon maanaam fukki at ak ñett yonent bi def na ko ci campagne boobu ay étape la ko def fekkoon na ay baay taxam ak ay bokki jegeñaaleem ci deret nekk fi waaye keroog ba mu yëkkatee kàddu wax na yàllaa ko yónni lañ na ko yow yàlla yi ni mbaree nga bëgg ñoo indil jenn yàlla ndax loolu mën naa nekk Abu Lahab moom ñëpp dégg nañ lim ci def ak nam ko noona woon ba tabat yada wàcc ci ak soxnaam loolu ñëpp gis nañ ko xam nañ ne kon kooku bokk na ci ñi ko gën a noonoo waaye njëlbeenu woote gi ci ay bokkam la ko doon tàmbalee ñu di ko bundu xataal di ko xatal di ko sonal ba mu jóge fi benn bis daal di dem Taïf diggante ak Màkka wax nañ ne di kilomètres la ba mu demee ñooña gën a tar ci kawam dal ci kawam wëq kaso ba xale ya ñuy dal ci kawam di ko wax lu doy waar di dóor ba nga xam ne àgg na ba reculer ci benn place mënatut a dem suñ borom ci la ko rañaane ci atum fukkeel ba ak benn wala fukkeel ba wax nañ ne ak genn wala ci la ko suñ borom nag rañaan ndax booba julli amul booba nañ daan jaamu yàlla mooy di ko jaamu ci tawxiit wéetal ko ak lu ñu jàpp ne baax na booba loolu amul waaye nag keroog nag bi mu demee nag di wër di woote ba yëf yi dem ba jéggi dayoo nag woote bi yeex lool lool lool lool am na ku ñuy wax sa mbokkum deretam la ci juróom-benneelu at bi ci la wuy si nekkoon yi nit ak juróom-ñeent Omar ci ëllëg sa Omar ibnul Xattaab door a ñëw nekk ñeent fukkeel ba xool leen juróom-benn at koy woote ci lislaam ci mbir moo bëgg a taxawal juróom-benn at ngay door a am ñeent fukki nit kon kooku mënagul a am ab état boo xam ne mën na caa taxawal. Euh, wooteeb sunu borom bii nga xam ne moom la ko yónni ne ko ma arsalnaaka ila kaafatan li naas waaye mu xam ne mbir mu baax foog ko dafay yeex noon ya di gën di dal ci kawam ci jamonoy fukkeel boobu ak benn nag ci la abu taalib wàcc waaye bi muy wàcc nag moom yenent bi jéem na lu ne wax pour bëgg mu tub waaye nee na ko kat daa am fu ma bokk ba noppi donte li ngay wax gëm naa comme gëm na ko ca xol ba waaye méngoot ak jëf ji waaye nag yàlla la neex waaye moo namm ci moom loolu moom it mu wëcc wàcc liggéey sayyidatina Xadija wàcc kon yónnent bi kon mel na nag ab tar la léegi te Abu Lahab demoon na di ca bégal waa Madinatul Munawwara waa Makka keroog bi doomi yónnent bi wàcc liggéey muy Abdullah yi nga xam ne moom la dese woon ci kaw suuf bi mu wàccee nag daa dem ci waa Quraysh di leen bégal ci yónnent bi léegi ab tar la léegi amatul kenn ko ndax ñi ko doon aar. ba ñu rusoon ci ñooñu ñooñu dem nañ ci muy sayyidatina Khadija ak ki nga xam ne mooy Abi Taalib léegi yonent bi sël moo fi des ak boroomam keroog bi waa Taïf jàppoo noonu ba sanal ko yàlla dafa wàccee malaaka mi yore xeer yi ne ko demal nga laaj ko nan la bëggee ko ko faagaagal noonam yooyu waaye bi mu ñëwee yonent dana ko jëru ko xam naa ne dañ maa xamul rek waaye bu ñu ma xamoon lii ñu def duñ ko def te ñooña mujj na am ñu ci gindiku ba mujj nañ ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci woote bi ci jamono joojoo nag nga xam ne julli amul dara amul ci la yàlla rañaane yonent bi ne ko comme waa suuf ñoo lay jàpp di la saboote ak di la naqadal kaay ma indi la nag foo xam ne si kenn mësu koo indi mësu fee indi nit ci la ko rañaane woon subhaana la si asra bi habdihi bu ngeen jàngee saar woowu al isra da ngeen gis ne ko yàlla rañaane ci minute yu néew mu dem juróom-ñaari asamaan yonent yépp yàlla dekkal leen malaaka yépp taxaw di ko sabal ba mu àgg ba mu jox ko julli yi mu wàccaat ba ci Muusaa di discuter ak moom ndax juróom fukki julli la ko jox mu ñëwee mu ne ko mënu ko mu dem wàññi la ko mu dikkaat ne ko saw xeet mënu ko mu di ko wàññi la mu des juróomi julli mu ne ko ba tey mënuñu ko mu ne ko rus na maa dellu nag ci suñ borom juróomi julli yooyu kon waajib la ci jullit bu nekk kon yonent bi sallallahu alayhi la demee sëriñ Touba mi nga xam ne tey mooy moom lañ ubbee woon waxtaan wi nga xam ne moo jëm ci siirab yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne siira bari na waaye siira bi seexul xadim indi dafa wóote ak siira yi ñene gaa yu baax yi ndax moom bi mu ñëwee rek dafa wax ne yonent bi damaa jaayanteeg yow at mu jot ma génnee ci yow ab siira raa raiya siira la Ahmad Suleymaan eh, siira la gis nga jës bu ak xasida yu bari yoo xam si xasiday tagg la yoo xam ne siira la nag siiram dafa bokkut ak yi ndax am na siira yooyu ni ñuy nettalee ci yónnante bi am na ci kàddu yooyu boo ko déggee mënta jariñ jullit yi ndax li tax mënta jariñ jullit yi dafa dul ànd ak orma jam war a àndal léegi nag nit ki bu fekkente ne dafa juddu la jiitu muy juddu ñuy nettali ci waajuram loo xam ne neexu ko loola bu sëñ Tuubaa di wax ci yonent bi moom du ko wax te da ngay dégg ñoon yonent bi ba mu nekkee ci biiru ndeyam yonent bi ba mu juddoogul yonent bi bañ demee bañ ba sëñ Tuubaa xare buñ gañee yonent bi mosu ko tudd dafa ñëw xool nuu bi nga xam ne moom méngoo ak jullit tolloog ñoom nga xam ne bu ko waxee jullit yi dañ ci mën a jariñu mu tàmbalee ci guddi gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gane jamono muy laylatu mawlidi nabi laylatu mahwi riya bi laylatu mahwi taxa bi wa wax ne guddi juddug yonent bi sallallahu taala alayhi mooy guddik farug sikk waaye mooy guddik farug coona waaye mooy guddik laabal bàkkaar yi loolu yaakaar naa jar naa màggal mu ne guddi kooku yonent bi juddoo nee na mooy guddik faruk sikk di guddi gi nga xam ne ci la ñuy far coono yi di guddi gi nga xam ne bàkkaar bu ca waay amoon dañ ko koy laabal defal ko ko ay tuyaaba waaye mu wax ne guddi googu mbégum biir ak bittee ngi ci ak mucca ngi ci yépp waaye mooy guddi gi nga xam ne mooy guddi faju aajam biha najaatu wal falaa maha sururu wa najaa biha rabaa wa salaa ma an defaa i daqan waaye sëñ bi daf ca teg ne guddi gi làq na xarbaax yu feeñ ak xar baax yu nëbb lu mu ca teg daal lu mel ne sawara wa nga xam ne fay na keroog guddi gi yonent bi say euh, sallallahu alayhi wa sallam gane jamono nga xam ne mooy xawat xawaariq badat xanni ruwaati sabatat ka mislu naarun atfixat mahamia daq sawara woowu dafa nekkoon sawara woo xam ne si dañ ko daan xam bu waxtu jot nga xam ne takk na ay junni junni at keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga ne jamono sawara woowu daa jekki-jekki nag kamat ba ñoom ci seen bopp dañoo mujj na ah waaw lii moom lu xew waaye ba tey sëñ Touba mi ngi ñuy wax nañu ba tey ci jamono joojee xërëm yi ñu daan jaamu mel na luy jaamu am ndox ba tub xëy na saa wata ba saaru dex la woon koo xam ne dañ ko daan jaamu waxtu jot day ball nee na bisub keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam gënee jamono dafa ñiis jékki-jékki mel ne kenn kenn kenn kenn xamatul lu bokk ci moom te mooy wa ayna saa wa tallati xat xasumat wa jallati lil fursi xablul milati waa ngiru fursu ñoo ko daan màggal wa suyirat sëñ bi nee na kon kenn kuy am xel yaar ci naan waroy su la gàmmoo sax warta am ci àddina wa kan xidaadi suxbi tardan li ahli riya bi xan same axbaari nabi wala joxo bi nadd mi xool leen loolu xool leen bayit woowu yàlla yabal biddiw yi woon ci kaw asamaan yépp ñu def ay jum tiim saytaane ak ñooñam di leen wàcc ci seen kaw teg leen buggal mu diis muy guddi googu nga xam ne ci la yonent bi war a wàcc ndax lan ngir bañ déeyaale gi muy déeyaale yonent bi ñu di ko ji ci mën a sàcc benn xabaar ñëw di ko wax xan samhi axbaari na bi war aa jaxu bi ñu ànd nag dellu ak gàcca ak tiitaange ak yeddaange kon loolu yaakaar naa doy na ci lenn ci xar baax yi guddi gi waaye sëñ Tuubaa nee na keroog bi yonent bi gane jamono nee na leer gu màgg màgg màgg màgg moo fenk moo na tayyi ba nga xam ne diggante ñaari dëkk yi mooy xaysar ak ummul xuraa keroog li muy soree soree soree dañ doon séenante ngir lan ngir leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuurun asimun qad yara bihi xusuuru xaysara man kaana fi ummul xuraa makkata xayral xarami nga xam ne keroog sëñ bi nee na dafa mujj sax péeyub kisra ba péeyub kisra nga xam ne dafa am lu mel ne saaru am taax bu ñu doon tabax di ko yëkkati rek mu sori kaw lool ñu di ko màggal jege asamaan lool waaye dafa mujj keroog bi yonent bi ganee jamono dafa màbbu màbbu waaye bi màbbee yëmul ci màbbu dafa tammaale lal ba nga xam ne moo nekkoon ca Kisra hatta zarirun kashara li ajli xawli ihtiraami nuuri afdalil wala rabbi alayhi salam ngir lan loola am mooy am tiitaange moo leen gaar ba tax lal booba sax dafa mujj tëmm ci digg bi ay sëñ nee na gannaaw bi ñu jullee ci moom te mësuma dañ di julli ci moom te ci moom lay yeesale sama yoon wii muy baxda salaatin la tasul bil ali wa sahbi hudul wa bi jaddidi sabil bila xiddan aw alami kon sëñ nee na xarbaax yooyu comme am na màggal ko guddi yonent bi lu war la ndax lu barkeel la lu ñu ormaal la guddi gi yonent bi gane jamono sëñ bi nee na lu barkeel la luñ ormaal la kon woote ko war na képp ku yor mbooloo képp ku yor mbooloo la wax guddi gi bu jotee danga ko war a woote mawliduhu muhazzamu mubaarakun muhtaramu ta'simuhu xatimu ala sawi taqadumi loolu yaakaar naa ne ku dem ci senegal danga gis lu bari ci ne sëñ bi li muy wax da koo jëkk a defal boppam kon sëriñ Touba ku yàgg a gàmm la te li ma leen waxoon ne dafa wax ne yonent bi at mu jot danaa def ci yow ab siira te nee na moom mi ngi njëkk a gàmmoo ci atum asasin axyaytu mawlida nabi min asasin waxaadani fawqal muna min talsasin axyaytu mawlida nabi min asasin ci la def genn xasida ñuy wax malaktu mawlida nabi min asasin <clears throat> malaktu mawlida nabi min asasin kitaabati kooku mooy 1301 at mi sëñ Mor Anta Sali wàccee liggéey ba ca déwén waaye xam nga ne la ko jiitu yoonu murit ku leen jëkk a moom amul ci senegal wala istiwaal andiwu ko ndax soxna Asta Walo ñëpp xam nañ ne moom ku guddoon fan la téeméeri at yi tegoon na te moo fi mujj soxna jaara te léppi sëñ Touba ci soxna Asta Walo la bokk te soxna soosu ab université la yoroon daara. daan jàngale daan solub jàlla bi di ber góor ñi nii di bor jigéen ñen nee bu gàmm guddi gàmm masaan jot am na xasida gi ñu wax ibn Muayyib moom la daan gàmmoo xasida gi jox góor ñi mu koy dëbbeel góor ñi wut moom mu koy dëbbeel jigéen ñi ba bët set lépp sëñ Tuubaa mi ngi toog ci jamono jooju ndax ay fukki atam ak lu néew booba moom la am waaye mën a way gim mën a way ak teel a way gim mën a Euh, way ci la daal di bind xasida Sine nga xam ne soxna sa wàlla jàng na Sine jox ko ko ne ko bu guddi gi jotatee dee ko màggali xasida gii te bàyyi gii kon xasida Sine Didi soxna Asta Walo na ko kon sëñ bi li waykat bi naan alifu nuska wal ibadatu wal xilwatu tifla wa hakaza nu jaba loolu moo ko gaar muy koo xam ne dafa juddu ci environnement boo xam ne dafa fekkoon ay waajuram nekkoon ay surafa di dund sunna si yonente bi sallallahu alayhi ci ni nga xam ne ni la ko doon yeesalaate ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa gimmi rek gimmi wàll lool waaye nag bi nga xamee ne nekk na ca loola loola yàgg na asas rek boo ko xoolee yàgg na 1301 boo ko xoolee ay 1881 ay 82 loola yàgg na kon moom ci 82 boobu ci la tàmbali moom gàmm moo tax mu ne malaktu mawlida nabi min asasin kitaabati am na beneen xasida bu mu bind rabiul awaliya rafaxa mu ngi ci la tàm mu ngi tàmbalee ci rafaani rafaxanaa ila al maai lasi xat maa al ajiban nga xam ne boo ko xoolee xasida googu murit yu bari teg nañ ci seen bët kooku ci yim daan jagleel weeru gàmm ko ci la bokk am na benn xasida bu mu bind yaa mawlida ama aksasin ci 1321 rasulun kariman baytana saara ahmadu xasida gi mi ngi ko tuddee yaa mawlida ama aksasin nga xam ne mi ngi tàmbalee ci yaqini ilal jannati ma laysa yahmadu rasulun karimun baytana saara ahmadu kooku moom it lu mu jagleloon xasida yi am na ci beneen xasida bu mu tuddee yow ma mawlidu Jaksasin muy mille cent 1304 1323 euh, am na beneen boo xam ne it mi ngi ko tënkee ci yow ma mawlidu Haama Haksasin bee Jaksasin la bii di Haksasin am na beneen bu mu tënkee yow ma mawlidu Hinsa nga xam ne mi ngi ko tàmbalee ci yasuuru rasulullahi bi xatti bi mawlidi yaduumu lana bisran bihi xayru mawlidi am na beneen xasida boo xam ne mi ngi ko tuddee saxri sahri mawlidu minna am na beneen boo xam ne mi ngi ko tënkee xaama xaksasin fi yow mi rabihil awwal nga xam ne mi ngi tàmbalee ci alal muntaxa xayral baraaya muhammadin salaamayka xallit yaa ilaahi bi hummadi am na beneen xasita it boo xam ne saxru rasulullahi baxjata shuxuur wa ramadaana shuxrin xaqin wa kafuur loolu wax na ko nga xam ne wax na ne bisu yónnent bi sallallahu alayhi guddi googu muy weeru gàmmawu mooy sangu weer yi waaye nag ramadaan moom mooy weer wi nga xam ne mooy weeru dëgg bi am na ba tey fi muy waxee naan yaa xayr saxrin jaa bil xayri mursali ashabta xata an maradi wa kasali weer wi nee na bu dikkee rek daf may jële ci feebar day toxu ci man ak tayyal day toxu ci man xannii maxawta kasali wa wajali wa xayraati sa asmatin min xajali kon mbokk yi loolu mooy lenn lu ñu jukki ci sëriñ Tuubaa ak gàmmo ci cosaanam ak lépp waaye nag am na lu mu waxoon ci guddi gi ne képp ku ko ci def danga ci am xéewal képp ku màggal juddug yonent bi nga xam ne mooy buntu jub képp ku ko ci màggal kenn du la réglé bu ëllëgee ca bis ba ñuy dajee fa man yuassi mawlida nabiyina baabul oda fala yu fala yuas man qada inda hisaabil mufhim nga xam ne mi ngi waxaat ne képp koo xam ne màggal nga juddug yonent bi ñuy wax ahmada nee na ku ko màggal bisub juddoom nga moom mi nga xam ne mooy ngën ji yónnent moom mi ahmada mel nga ne ku shahid maanaam ko faatu ci xare badar wala taxsibanna allasina xutilu fi sabilillahi amwaatan bal axyaan xinda rabbihim mel nga ne ko shahid waaye nee na képp ku jël ku dundal ci guddik juddug sallallahu la wa sallam lu mel ne nga jël sa alal donte ab dërëm la képp nga di ko ci def nee na da mel na ku teewe woon xare ba nga xam ne mooy xunnay ni te mooy badar ngay dimbali sallallahu alayhi ci fett yi ñu lay fett fa kullu man anfaqa fi mawliduhu musarrafi maalan bi gayri sarrafi walaw bi xadri dirhami waaye ba tey nee na képp ku màggal juddub yonent bi nga xam ne mooy buntu jub nee na képp ku ko màggal juddu yonent bi nga xam ne mooy buntu jub kenn du ko mbugal ëllëg bu jaam yépp teewee ci kanamu suñu borom fa man yuasim mawlida na babil huda gis nga ko kon loolu mooy lennat li ñu mën a taamu ci bayit yi sëñ Tuubaa wax ci ki koy màggal waaye am na nag ay melokaan yu mu waxoon ci yonent bi ci portale nga xam ne boo ko gisee da ngay xam ne lii sëñ bi waxoon na ko sëñ Touba nee na woon dafa nekkoon koo xam ne nekk ku digg dóomu la woon nekkul woon ku njool ba ne sellax nekkul woon ku gàtt ba ne tobuj xat kaana saa tax wasatu fi xat jaali sutti walam yakkun bi mufriti walam yakkun bi adami waaye dafa wax ak waxat fii ne dafa wax ne doonul woon ku foqaral ko am yaram maanaam koo xam ne si dafa bëggoon lekk dafa nekkoon ku digg doomu te ku masaan ànd ak moom di dox nee na daf lay raw walam yakun mu taxama walam yakun mu kalsama bal faaxa kullu man sama min muntamin li aadami waaye nee na bu ngeen masaan di ànd di dox nee na moom moo la daan sut ci jamono bu nekk nag bu ngeen masaan di ànd moom moo lay sut waaye nee na su ree nee na ree googu deewul xàqtaay waaye dafay muuñ rekk kaana yatuulu kullu man maa saa fi kulli saman wa kaana waasixan xatan yaddaxaku bi tabasumi sëriñ tubaa waxaat na fii ne moom mooy moom la nit la woon ku rafet yaram wa dafa jaxasoo woon nekkul woon ku ko mën a wax ci menn melo nekkoon ku amee nag ay xef waaye nag ku nagu bëtam ba yëkkati ko woon la wax wa jalilun xullabu bayaadoxu musarrabu bi xumratin wa ahdabu wa anjalun waaye sëñ tubaa dafa waxaat ci weneen bayit wax ne nee na yonente bi daana reere waaye deewul xaq tey waaye bu ma saan reyit lii génn ci bëñam yi ndoxum bëñam ma day mel na ak melax ci biiru lëndëm nee na melax googu di génn ci e, bëñam nga dafa daan gàcceel ak lëndëm yaftaru asnabtisaam fii asnabtisaam kal baraxi aw xabil xamaam wa daxkuhu yajlu salaam ka surajin fi sulamin sëñ Tuubaa nee na kanamu yonent bi dafa wëndeelu woon nekkoon ku woos ku rafet la woon <clears throat> ku daan doggantal ay waxam dawul wax rek wax ju bari nii nga mën a jàll wa wajhuhu mudawwar wa huwa xamiisun azharu wa huwa bahiijun azmaru murattilu taklim masaan wax day doggantal nee na lexam ya daa meloon na wurus daa nekkoon lexam ya boo ko masaan gis day mel na wurus ay benn benn wurus yu nekk ci dara nga xam ne danga koy xool muy leer xat nekkoon ku jub ab taxawaay te nuurug bakkan ba yëkkati ko woon bakkan ba dafa yëkkati ko woon ka annama alzahabi fi xaddihi lmuhasabi wa kaana bi alxasabi irniinuu soo waaye Sëriñ Tuubaa dafa wax na ku ame woon ay nopp la nekkoon ku saarar ay bañ kanam nga boo ko masaan xool day dindi njàqare day wuñu njàqare kaamilu usnun ad'aju wa asnabun mufallaju wa askalun mubtaxiju wal wajhu maahil xummami léegi nag bayit wi ñuy daanele mooy sëñ Tubaa waxe ne mooy ki nga xam ne moo gënoon a mat nit ñi mbindeef yi ñu ne ko ci lu mu gën a mate mbindeef yi mu ne ci jikko ak ci bind te noonu kooku ëllëg jamono duutu indi ku mel ne moom mukk ci àddina wa huwa akmalul wara xalxan wa xulluxan zahra wal mislu xat lan yuraa walan yuraa bi cheemi kon mbokk yi li nuy jéem di nab nabi ci jéem wax ci yonent bi fit rek lañ am waaye du xam-xam waaye innama ahmaalu bi niyyati nag yàlla dana fay yéene yéene lan am ci yonent bi di jéem a jukki ci teenub sëñ Tubaa di tànqal nit ñi kon lu ngeen ci dégg muy nuroog lu rëq xam leen ne fit lañu jàpp waaye du xam-xam ak barkeeloo ko ci guddi gii nga xam ne ci lañ dëgmal ci yonent bii nga xam ne tey noon yi taxawaat nañ fas yéene ko tilimal wala ñu ñaawal ko mënuñu ko ndax yàllaa ko tànn ana xiyaarun min xiyaarin min xiyaarin adabani rabbi bi axsani tadi bi yàllaa ko tànn yàllaa ko yar kenn mënu koo ñaawal kenn mënu koo gàkkal te ku yëkkate sa kàddu ci moom di fésal ak mbañal ci moom danga nga toskare da nga torox te yàlla na la torox yàlla toroxal ba àddina sépp yëg na ko torox nga wa axiru daxwana an alhamdulillah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf يا من جل أن خاد ارحم جميع الورى الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخديمه سبيل الرضوان والتمكين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته seen mbokkum taalibe Moustapha Guèye taalibe sëñ Moustapha Massamba di soppeeb sëñ Mbàkke ma maam soxna loo Jóob Taayif tey ànd ak sëñ Muntaxa ci liggéeyal sëriñ Touba saa su nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi te wér lool tey roy Cheikh Abdou Lahad ci dëgg tey encouragé sëñ mamoor bu Cheikh Mamadou Mourtada Mbacke yàlla dolli ko tawféex ba naal yi waajuram wii ci toolub lislaam mu naaloon ko nekkoon ci ba jóge fi mu wuutu ko ci yàlla na ko mottali di naal ay naalam di naal di naal di naal ba abadan bokk yi tey ñu ñëw nag ci lenn ci ab soññee lay doon ñun ñi nga xam ne ñooy jullit yi gëm yonent bi na ñun ñi gëm sëñ Tuubaa ñu góor góorgóorlu farlu bu baax te xam ne saytaani jóg na ak ay kuréelam fas yéene ñëw ne nag day màbbu lislaam te ci tool bi sëñ Tuubaa nekk foofu la ko bëgg a tàmbalee te njëkkoon na ko dàkk ba dëkkoon sëñ Touba ci ama jay sa sin sëñ Touba toloxal ko ba mu ne tot ba daanu ba loolee mu doon wax naan turri dafi aabi najoom boobu moo ko mujj gaar waaye du tekki ngém ba mukk waxtu wu jot mi ngi seet bunt bu mu mën a jaar donte da ci yàq 2 pour cent sax xeebu ko kon ñun yàlla bu ñu bokk ci 2 pour cent yooyu sëñ Touba dafa ñëw indi njàngale mu leer naññe njàngale mu leer naññ la sëriñ Touba ñëw indi ko jëf ko ñu gis wax ko ñu dégg bind ko bàyyi fi kon kuy réer tey fa fooy war a mën a ameew layu damaa gisul ku ma xamal bu fekkee sëñ Touba nga yaakaar ndax keroog bañ ko jàppee di yóbbu jëmmuñu jëluñu jëmmi sëñ Touba ne dañuy sànq jëmmi sëñ Touba mukk jëmmi sëñ Touba intéressé wu leen rey nit kenn nit képp déedéet lam doon incarné te arrangé wu leen loola tax ñu bëggoon a jël jëmm ca jaarale ko fi ñu jaarale bóor yi ku mas a jóg di révolté ñoom ñu daal di jóg daal di lay jàppe seen anti jëflante ak yow gis nga ñaata sëriñ lañ fi rey ñaata buur lañ fi rey bi sëriñ tuubaa ñëwee ba taxaw. dëggal boppam ngir ne dama yëkkati raayab lislaam ndax maay ki nga xam ne maay yeesal duune seydina Muhammad lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatahu alxaraawa inni ahmad loola lu wér la ñu ne ko nag tey doo ko fi defe te mboolem lañ doon mabbu <coughs> ci yow lañ koy tàmbalee tey keroog bañ ko yóbbu sëñ bi dafa bind ne <coughs> xusóor yi xalat wal ahlu anni tafaraxat li matxi lësi xanxu madihum qasiru lislaam a ko taxoon a dem samaaniya ajjajin ilaa xalila mooy juróom-ñetti at yu manqué moom la def ci natt bi yooyu àndul woon ak ndey andul woon ak bàyyi andul woon akub taalibe andul woon akub soppee fekku fa woon kom xam fekku fa woon ñu ko xam te moom nee na kas bi tawxiidun wa mat li bi sama pàgguteef ci sama àddina mooy wéetal yàlla fu ma mën a toll ak tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam atiicu ilaahi qaadiman lil wasilati demal ci midaadi ñaar yooyu te mooy laa ilaha illallah muhammad rasulullah ñàgg nañ sama dëkk fay samay tàlli jàng bëgg tasaare sama njaboot ngir lan ngir lislaam sëñ Tuubaa ne leen loolu duma ko fekki mukk liggéey ci liggéey bu rëy ba yàlla dimbali ko ci dundam yépp muy xarakaatam yépp yónnent bi la suñu borom day tax yàlla fay ko nag loo xam ne ba àddinay tukki benn noon du ci mën a kontaan moo xam noonam naafiq la te noonam naafiq mooy ki ne ab jullit la te mbirum sëñ Tuubaa neexu ko kooku la muy julli ak la muy war lépp kasara kasar la ndax al muslimu aqul muslim innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum alxuraan la du samay wax kon naafiq bi mooy ki nga xam ne moo na ci ab jullit la wax na baati seede yi gëm na bisu pénc gëm na bisu dekki gëm na malaayika yi gëm na alxuraan gëm na lépp waaye nag dogalu suñu borom moom nee na duma ko nangu kon ñooñu ñooy naa naafeq yi ak ñi nga xam ne ñooy yéefar yi nga xam ne duñu fi jóg mukk te torox gi leen sëñ Tuubaa toroxal ci xama jay sa sin loola day marqué ci ñoom ndax waxtu at mu jot bu jotatee dañ koy célébrer ci àddina bi ku dox ba laaj lu mu doon ñu ne leen kii kat ab état jóg ak i gàngooram jóg bëgg a faagaal jëmm ju matul cinquante kilos mu toroxal leen bañ na tot ci su kaw suuf te paaka jógul si jógul wàññi ku ne xafawtu xanil ahda i turan li wàcc xi man nafaahum li xeyri sarmadan lasta ad adfahu yamul ci toroxal leen may daf leen a mujj jéggal topp leen dara kon nag ñooñu ba fi mu ne gàcce googu daf leen di toroxal ba duñ mën a toog mukk te amuñu lenn luy tilimal yoon wala lu koy saboté mais sëñ bi yàlla wax na ko lépp nee na ko ëllëg am na ci ñoo xam ne danañ dikk sa gannaaw bëgg tilimal sa saw yoon sëñ bi daal di jël xalimaam bind ne yéen murid yi yéen laay waxal sama jihaat jeex na takk sama jihaat jeex na takk samam njaay jar na ba bénéfice ba mi ngi nii ma tëyee sama loxo sama jeexaat jeex na yéen murid yi waaye samam njaay jar na ba sama bénéfice mi ngi nii ma tëyee waaye li ma leen di xamal nag ëllëg xaj yiy ñëw di bawu sama gannaaw duñ ma jublu xaj yiy ñëw di bawu sama gannaaw duñ ma jublu sëñ bi waxul woon xaj yii di yor ñeenti tànk de xaji mala yi waxu ko woon de xaj yi nit ñi yor ay tànk wax na ci yonent bi sallallahu alayhi lañ bokk wax na di tudd seen bopp ay nit yi sunna ñooñu la doon wax moo tax mun a jihaadi yantaha wa tajri raabihu waliya laa yaxsidu kalbu naabiu waaye ku tedd ki nee na darajat yi bilantihaa i yarfahu walaahu lii bilantihaa i faxu sama daraja waxtu jot yàlla daf koy yëkkati ñépp di ko seen ku mu neex ak ku mu naqari ku mu neex ak ku mu naqari waaye njariñ yi ma yàlla di def daf koy yokk waxtu jot ku ànd ak man njariñ kon nañ fexe ba bokk ci daraja yay kawe fexe ba bokk ci njariñ ya xam ne moom la ko yàlla di jox te xam ne waxtu jot képp ku sëriñ Tuubaa indil problème am nga posen bu nekk ci biir moo xam nga di ko manifester moo xam nga yor derb nga nekk jikkoy nekk bukki ba pare muuroo derb xar bëgg a dugg ci biir mooy ñiy jéem a maslaa di wax ci ay bayti sëñ Tuubaa murid yi tekkiwul tus muy murid yi jóg di ko def aal di ci fecc ndax bu ba set sëñ bi wax na loo xam ne sii bu dee àll rek doy na àll kon la keneen di wax ci àll ba bu mu nu ferege ñeente nañ ko bàyyi ca noona xam ne ku bëgg sëñ tubaa sa bopp ku mel ci sëñ tubaa ne sa bopp innama amalu bi niyati wa innama li kulli imri in man nawa sëñ tubaa du moroom te du masa doon moroom ndax ki dul moroom amul moroom amul borom kooku moo ko tànnal boppam def ko lam ko def kuy déclarer guerre demal nga dajeeg suñ borom boo dajeeg suñ borom boo fekkee dangaa mën a geer képp da nga ko def sëñ Touba ni mel sa defalu ko boppam jom jeeg fit bi moo ko jox boppam waaye bind bi ak melokaan bi defalu ko boppam kon koy déclarer guerre déclarer yàlla yëkkati ko mu kawee ñëpp kawe ñépp ci lu amul benn sikk sàkk ndax ku ne xam nga ne am nga ku la man ci àddina bii man mii xagis naa ku ma man gis naa ñu ma sut xam-xam yéen gis ngeen ku leen man gis ngeen ku leen sut xam-xam lu tax ngeen nangu loolu nag te nangul leen sëriñ Touba nag nit la ko xam ne moom yàlla defal na ko loo xam ne si defalu ko kenn loolu yàlla la du sëñ Touba waaye man li may préciser rek mooy kuñ mën a tegal sëñ Touba di tudd ko tudd di tudd sëñ Touba xoolal li sëñ tuubaa defaral boppam muy ay mag ñu ko toppoon. ñi may wax naan wali xaada ahbaban bihi ushiru nuska suñ borom moo ma womatal samay soppee yi ma xam ne ñooy ne samay manoore ñeent laa ciy jël sëñ Mbàkke Buso sëñ Abdourahman loo Cheikh Issa jenn ak sëñ Mandumbe gis nga ñooñu kenn ku ci nekk bi ngay ñëw ci sëñ Touba ñëwee woo ak jaahil bi ngay ñëw fees nga dell ci yàlla fees dell ci karaamay suñ borom yi kon lu la indi ci sëñ Touba loolu mbir la nga ñëw sëñ tuubaa dolli la dolli la dolli la dolli la dind ci yow li matul li matul woon a ànd ak yow def ci yow nag loo xam ni bi nga demee ba nga xam ne mat nga li nga doon ku ñu lay tëkkaleel boole rek kooko da nga ko daan lambi lislaam joo dem danga ko daan jëlal sëñ Abdourahmane Lo kuñ fi man di tagg ak alxuraan joo mën a man ak loo mën a liggéeyal yàlla bu ñu la méngaleeg sëñ Dame Abdourahmane Lo mu daan la ca suuf bul tudd sëñ Touba di tudd keneen sëñ Mbàkke bu so ci sareexa ñëpp xam nañ ne ku dundoon tasawuf la ku dundoon sareexa la képp ku ñu la mën di wax ne nitu sareexa la dëgg ku ragal yàlla la bu ñu la méngaleeg sëñ Mbàkke bu so ci xam-xam mu daan la waaye xoolal Cheikh Issa Diène mi nga xam ne ba dafa lëggéeyal sëñ tuubaa te bi muy ñëw ci sëñ Touba làq na lépp lu baax làq fépp fu baax ñëw sëñ Touba duy ko ba buy dox ci kër gi di dox lëggéey b mu lëggéey sëñ Touba danaan ko bul fàtte Issa ak ku ñu tëkkale tëkkale la ak Isa Seex Isaa mu daan la kon di tudd sëñ Tuubaa di tudd keneen ëpp na kon nag li nga xam ne moom laay wax ñi taxaw naan warisu la gàmmoog ñooñu na ngeen leen boole ci kalbun naabiu kalbun naabiu sëñ Tuubaa dafa woo sëñ euh, Mouhamadou Lamine Diop Dagana di wax ak moom bu mujj mu ne ko Ahmadou mu ne ko Mbàkke mu ne ko xam nga li ma yor mu ne ko déedéet mu ne ko ahmadu mu ne ko mu ne ko wax wal xaahiru faw xibaadihi boobu yàlla wax ci alxuraan ne benn jaam tawuma benn jaam tawuma yàllaa ko wax de wax wal xaahiru faw xibaadihi mu ne ko loola man la ko yàlla rafaatale ahmadu mu naaw mu ne ko benn jaam tawuma ahmadu bu ëllëgee ku ngeen dégg muy taxaw mel na lu may ŋàññi ci kalbu naadixu boobu wala mu wan ma gannaaw xam leen ne wanu ma gannaaw maa ko soxlawul ahmadu mu naaw mu ne ko ku ma soxla nga fanaan si fii kon ku ngeen gis muy ŋàññi sëñ tubaa xam leen ne sëñ bee ko soxlawul waaye kenn jaaxalul sëñ tubaa léegi nag la mu wax mooy ahmadu mun aaw mun a ko yoon wi noppi naa ci gis nga noonu njaago de def wut ay sero ay sorom yu wute ay couleur rabbu ci ab séram taxañ ko waxtu jot mu taqar ci fekk am na lu nëbb woon lu génnagul wala lu jotagul woon nee na noonu laa def yoon wi waxtu jot damay laqarte su ma laqartee rek nit ñi dañ naan i waaw lii fan la ko sëñ Tuubaa defoon loolu Masaalikul Jinaan keroog bi ñu ko ubbee ba nëga ni àddinaa ngi bëgg a tukki wax ji bari na coow li bari na waaye darajat yi bilanti he yar faxu boobu sëriñ Tuubaa waxoon mu am sëñ Muntaxa mii ca séri rabal yooye la bokk nañ ko ñaanal mu yàgg fi tëwér ak tey surriyatan tayyibatan tujaddidu yi nga xam ne waxtu wu jot ñi ngi ci li neex sëñ Tuubaa fi ma ciy daanele mooy li waral wax ci muy bisu gàmm bi muy boo demee tey ci sëtaatam sëtaatam bi nga xam ne tolloon ak jamono ju naqari ju metti mu man cee liggéeyal sëñ Tuubaa liggéey bu rëy ci gàmm liggéeyal ko ci ak jub mooy ki fi jëkk a wóotoo muy ab taawam Cheikh Moustapha al Karim mi nga xam ne ci jub la ko doon doxloo sëtam boobu yi nga xam ne moom la wax sëriñ Moustapha Njañ dëkk Néboo ji nekk Taïf di fa gàmmoo li muy dajale am mbooloo moo xam ne kenn xamul niñ toll ci tax si mu yan xatimu boobu la saw yi taqaddu mi loola jar na njukkeel te jar na gërëmi sëñ tubaa ñooñu rek boo ci xoolee dangay mën a bëgg ci sëñ tubaa te doom la waaye bu ñu jël jëmmi sëñ tubaa ji mukk di ko jéem a méngi da ngay xool rek gàmmo gi nga xam ne Cheikh Moustapha mi ngi koy woote tey ji ci Taïf nga xam ne murit yépp dañ ko def mbégte taalibeem yépp dañ ko def mbégte muy toog ci biir di leen berdeel sa xol sedd sa xel loolu wax dëgg yàlla ku xool ci Cheikh Moustapha képp doo xulool sëñ Tuubaa doo ko xeexal ndax jëf moom bu xasee taxaw rek wax day daal di tëm yoonam wa rahmatullahi wa سنت بشري مكاتب التسوق اهمدنا ميسرا لما زر سعبت القرآن ونبي ما جادني بسايا ونفي أداني الله بالكتاب ومن أبي بلا إتاب رب الإله والنبي أحمد وسيلتي وإنه محمد كرامة يا كوني يا عبد الله قديم عبد الله عبد الله رسولنا أحمد سادر الإله صلى عليه وقف در الله جزاء منتقى خير الجزاء في كل ساعة وساعة جزاء بهت بالله إله إلا الله سرا ولا إله إلا الله هاجر قزايد قلوب جند لي بزرى مقبى وبزرى أورك الدين هاجر قصائد قلوب جند لي بزرى مقبى وبزرى أورك الدين أنا والعرود والبيان لي سلمت ولبيان يا الله